Assalamualaikum bokk internet yi yéen ñi safoo di sétan sen site internet sen découverte TV tay ji ñu am kontaan ak mbégte ñëw fi sét ci ndaanaan lo xamanteni ni ma sha allah mi ngi xoos di jall def yoonam ñu nan ko vie ndjay borom olala vie ziar nañ la. wa senegal. wa Sénégal assalamualaikum wa bitim rew ah, wa diaspora bi bayuma kenn wa di nuyu nak sama fans sama xarit yeeg di leen nuyu yéen it découverte TV ma ngi leen di bëggee ñep ila ni share waaw Vieux Ndiaye ñu ngi lay ziar ñu nit euh, Vieux Ndiaye bu suñ bëggoon a xam kan mooy Vieux Ndiaye lan ngay wax ñiy seetaan seen découverte TV. waaw man nag euh, maa ngi tudd Vieux Ndiaye waaw dëkk Fatick waaye yaroo ci banlieue bi muy Pikine euh, ginnaaw raay mais léegi nii maa ngi dëkk nii Cambérène 2 waaw Vieux Ndiaye nag chanteur la waaw. comme tous les chanteurs waaye nag chanteur bu nuroowut ak yenn chanteur yi fi ne waaw. nee na chanteur bu nuroowul ak chanteur yi fi ne ça veut quoi loolu lan lu tax nga wax loolu. waaw maanaam damay wax comme li sam papa waxoon rek damaa mën a ci bee mën na ci bee mais Vieux Ndiaye gis nañu yoon bi diisoon na loolu te bari ay xaaxaam ñii may nga ñi wax sénégalais yi Vieux Ndiaye fan la jaar. waa man sama jaar-jaar nag euh, maanaam metti woon na lool ndax sama koy wax sax léeg-léeg bëgg joy jooy metti won na lool nak vraiment amna ay jaar-jaar yu tar yo xamna jaar na ci wala xana amay la ci ñaar ba ñett rek ndax ci xal lepp waaw ndax amon na ay jamono man mi di wax ayo nan manam de ko na sax ci kër manam dem ba fin du mois amul ma fayé ma yoral borom kër gi ba mujj gi daf ma génné jël sam bagage yépp sanni voilà ma nek ci mi Euh, oh, di fanaan ci benn gardien bu ñuy wax Aliou ñu ngi unité boobu ci moom laa doon nekk presque pendant 3 mois yoo xamante ne fa nekk ci moom waaw di ko gérer teewul su ma xëyee damay sangu ba set sol sama yére nekk ak nit ñi nice dem programme bi jotee ma dem programme joué ji comme ay ngénte yeeg ci xew yeeg ci jàkkaarloo yi voilà laa doon xare mat du guddi génn mais bu guddi jotee manam dem toogandoo gars yi ba 2 h du matin ba gaay yi tëddi ma jël sama ben sama ben dara bu ma yoroon sangu 5 h du matin ma yew japp julli après nekkaat sama activité dem keur sama keur ben mère bu ñuy wax euh, mama Nancy fa laa doon dem ndaysan bu ñep xé ma teud fa nelaw ba 2 h ma yew añ sangu nekkaat samay activité pendant 3 mois. voilà am naa ay jaar-jaar yu méttee méttee yoo xam ne sax vraiment yëpp mënu cee jaar ko am métti woon na lool. mais Vieux Ndiaye gis nañ ni tamit euh, après daal daan nga nekk si ay ginnaaw artistes di leen aw bon ay artistes yi mag mun nga ñëw wax kan la ak seen relation ak moom. waaw man nag euh, euh, ci Abraham Pipo laa njëkkoon nekk après ànd ànd bu rafet ci la ma Yves Niang gis tamit woo ma ci orchestre am ma di aw Monsieur Cheikh Ibrahima aw presque deux ans trois ans après ci laa jógee Cheikh Ibrahima ma Kumba Gawlo dit soxla da dem di en même temps Kumba Gawlo aw Kumba Gawlo xam nga momit ci orchestre mais gis nañ ni bopi doxal sa sa bon. dañu doon fay force sax ci wéewu boy ni ba yow Iviña ba ngeen àndee après ya la mujjé génné kërëm non manam Cheikh eh, ibrahima ah, ah. men non Cheikh ibrahima musuma génné kërëm waaw loolu moom ay wax yu mbedd mi la rek waye Cheikh ibrahima musuma génné kërëm musuma génné kërëm mais ñu gis tamit nak yaangi doxal sa yoon tayit eh, gis nañ ni fan yi rek génné nga musique bo xam tane album la nga tuddé ko Olala. mais boobu avant olala bi mu am nga génn ben single bo xam ne tudd na olala te euh, mu indi ciow lu bari yow ben artiste de la place mu naan ko Abiba donc nan naka nga dundé affaire bobu te it euh, gis nañu tamit du moo du woon artiste bobu cassé amana yelen artiste mais ñi ñi taxaw si artiste euh, kii bi Abiba bi duñu delluwaat ci affaire yi nu mu demee mais pour résumer rek gis nañ ni après bon est-ce que loi waa SODAV ak ñom ni ñu ñu doxalee est-ce que yow gis nga ci sa bopp wala waaw na xam nga man booy set waxe Abiba bi sax man bëgguma ci di wax xam la motax dama koy may buzz comprendre nga fuma waxe Abiba xalé la ñun bañuy way bo mu wayul moom comprendre nga naam jël na sama way way ko comprendre nga manam c'était juste que rek man dama doon wax ak mom muy wax ay façon wax bo xamantene neexul kenn ci Sénégal maanaam olala olala ñepp la kum neex nga olala ci woyu jàmbur comprendre nga looloo waraloon wax ji ma doon wax ak moom rek waaye du caagin kenn fii woy yi fi nekk moo ëpp doole sax olala sama album bii ma génnee ni huit titres ku ko déglu di nga xam ne Vieux njaay mii olala mii moo gën a ci woye mi waaw ah, dégg nañ sax nga après am na yuy ñëw yoo xam ne bu ñëwee day suul olala noo waxatuñ ko am na yuy ñëw yoo ko mais nag olala nag li ma ci jaaxalan bi dama ko tëggaatee dama ko tëggaatee noo xamante ne fi mu ne nii day gën a garaaw sax bee ma génne woon loolooy problème bi mais instant bi may wax yow nii nii nii nii nii woy yi nekk ci sama album bi moo gën a neex fukki yoon olala na nit ñi dem jëndi album bi waaw album olala bi nagaa yi dem jëndi ko huit titres la mais morceau ci nekk mara day MC ñu ko jot a déglu ñëpp a ba ci animateurs yu mag yeeg ñëpp a apprécier waaw gis nañ loolu mais tamit euh, mun nañ ne ola kii bi album bi mu ñu tuddee ko olala nan nga naka nga ko liggéeyee quoi. waaw album bi euh, boo seetloo maanaam liggéey naa ci nag jël naa ci sama temps ndax biir que li may awoo li may xam nga woy ci mariage yi extra extra et yëpp maa ngi liggéey jël sama temps di ko togg liggéey naa ko pendant quatre ans trois ans yoo xamante ne dama cee sonn di ci jaayante di ci dem géej di entraînement. di yuuxu di defar voix bi li léeg ma dem studio ñu ne ma tey mënoo way waaw voix bi tey nekku fi dama yokk sa entraînement ma dem yokkiwaat entraînement yi dama ciy liggéey liggéey bu mucc ayib voilà ba tax ba tey album bi génn tey. mais est-ce que album bi dina am buzz kon olala oh nu mu amee woon buzz parce que gis nañ ni tamit olala oh, bi dafa amoon buzz parce que <laughs> man man dama am na ñu naan sax carrément. ni li ko baa woy ak yeneen artistes yi noonu mu loolu yow dalaa gën a yokk bës si affaire bi. non non non non. est du def sa arrangement yow. non non non parce que au oh laa man son bi moom ma jiitu ci nit ñi man fa ma ko wooyee gosaas laa ko wooyee nga gosaas fa mu nekk gosaas laa ko wooyee ñu dagg ko ñu dagg affaire bi parce que man saa bu may jouer samay live gars yi dañ koy enregistré.

waaw gis nañ loolu mais Vieux Ndiaye avant ngaa def album bi ñaata single nga jot a def. waaw man avant may def album bi def na ñaari single. waaw def naa ñaari single. am na single boo xamante ne woy naa ci engagé beneen single bi olola bii la. Ah. voilà mais gis nañ ne engagé bi dox na lu mu war a doxee mais olola bi moom moo ko yëngal. waaw non olola bi moom engagé bi sax moom moom it na de. Hmm. ci ngeen ko xamul rek mais mais engagé bi moom it gars yi bëggoon nañ ko lool. ma ñëw génne ololaa gars yi gën koo bëgg yi voilà. Ah. léegi album bi ba léegi damay ñëw si album bi rek euh, bon lan la mën a xaar si album bi xam naa wax na laaj naa la ko sànq mais ba léegi répondre gu ma ni moo ko bëggee parce que dama gis ni yéen musiciens yi léegi carrément parce que buzz bi ay ay fecc ay fecc ngeen ngeen di gën a ngeen di gën a ngeen di gën a gën a jël seen temps di ko si def ak yooyu noonu at ay woyu buzz.

man tamit tey sama woy bi may woy nii maanaam tey dugguma ci pour ay buzz ndax euh, sa papa Youssou Ndour daan ko wax léeg-léeg ne musique du affaire u njëkkante du affaire u maanaam ay rawante liggéey la man damay liggéey te ku déglu sama album bi xam ne du album boo xam ne dañ ko def pour ay buzz wala di genre non non non mm-hmm. album la doon boo xam ne maanaam lépp luy woy lépp luy woy ak boo bëggee dégg woy déglu album bi comprendre nga maanaam nag euh, bu dee wàllu fecc meeg yooyu man moom nekk ma fecckat damay wut ay fecckat waaw damay wut ay fecckat ñu di ma feccal waaw fay ay fecckat ñu di ma feccal waaye man moom duma fecckat vraiment ndax musique bi léegi gars yu bari dañ koy jaawale ak musique euh, Euh, ambiance et musique euh, comédie La musique qu'une comédie jamono juñ toll Youssou a di Baba Mal di Il y a Ismaël Lo di man Il bëgg a waaw pour ay woyu buzz un mois mu deux mois mu mu a nga studio non lan ngay wax ñooñu noonu nga xam ne dañuy woy musique boobu noonu di def loolu tey it euh, alors que ne musique dañ ko dañ ko xamee si ñoo xam ne da day yeete day yare te day digle lan lan ngay wax ñooñu. waaw waaw mais xam nga nit ku nekk ak fi muy génnee. nit ku nekk ak fi mu mënee. xëy na ñun maanaam suñuy royukaay maanaam musique normale la ñu xam ñun musique bu rafet te baax te ku ko déglu xam ne lii musique la man da ñooñu lay roy mu Youssou moy sama idole à part ça manam benen musique buma ma neex na ma parce que tay bastion mi koy def neex na ma keneen nek ken mi koy def neex nañ ma ñëpp sama xarit lañ waye nak dama leen di encouragé rek di len wax rek ñu ñomit it japp ndax buñu amé amee seen njaboot la ku ci am sa yaay nga yobul comprendre nga voilà di len wax ñu japp rek mu gëna deugar ndax ku nek ak lim bëgg askan wi ñi ragal lañ bëgg ñii mbalax pur et dur lañ bëgg ñii musique bu soft bu nit ñi mën a déglu lañ bëgg ñii mbalax pur et dur lañ bëgg muy xale yi soog a jóg nii comprendre nga. léegi nag booy def album nag da boole yëpp man sama album bi def naa ci ay mbalax yu saf saf xam ne pour xale yi la naa ci ay woyu mag yoo xamante ne maanaam ay woyu mag la sa jabar sa xarit la war a doon ay xulloog jëkkër làngal góor yi saaga say njëkke roñu roñu dem roñu roñu ñëw noonu nga dëkke neexum ngont xam fa ngay fanane ko gën ku la xol nga mer doo war na baat sàkk woo ku ñuluk sa jëkkeer ya yak say doom wolof njaaye ko wax kon man damay way ba woyal askan bi ay way te nañ way bu diglewul yeetewul ay naxaate la waaw lim wax deug la teyit macha allah moom la suma kay wax da gaay dañ lay yaakar ne may wax du la may tarkal la macha allah ku deglu musique am njariñ nga ci dégg mais fii ñu gis ni tamit gis nañ serigne Diop ay temps na la awul Euh, bon léegi moom mi ngi berber na bi yoonu boppam ak yooyu noonu naka naka soo ko gisee lan lan lay jox tey it euh, moom mi ngi woon sa ginnaaw te léegi gis nañu moo la njëkk a génne album est-ce que c'était normal wala boog musique moo demee noonu. waaw xam nga musique euh, maanaam maanaam ci ay jamono ñun dañu amuloon ñu ñu jàppale ndax musique bi léegi ay naanaan yu mag ñu ngi ci ginnaaw ah, mën a woy lool mais amuñu album. mën a way loolu nag laa wax te amuñu album léegi nag ñun naam bi ñuy way ay Sidi Diop wayuñu man bi may way Wally Seck sax mën naa ne ñoo duggandoo ci musique bi comprendre fi ma waxee voilà mais siidi Diop bi may way wayul bi may awu caat Seck après ci la jóge ci caat ñëw ci man comprendre nga voilà di ma jàppal kër joué sama premier partie

vie gars yi dañ ne yow sob parce que vie tey tey ñu ngi la gis si politiciens yi suba yaa ngi fi tey yaa tey yaa ngi si musique bi mën nga ñëw expliquer sa relation ak musiciens yi. waaw man sama relation ak musiciens yëpp naa ngi sax man musiciens yëpp samay xarit lañ ñëpp samay gaañan lañ loolu moom yàlla def na ko mais euh, ci côté. politique bi ngay wax noonu man man man euh, je suis apolitique maanaam nekkuma politicien. mais nak dama am ay xartu policier ya, politicien ya. waaw parce que tay iya, ku melni tay iya, président de la république ño bokku deuk fatik ño bokku deuk fatik bokku ben koñ comprendre nga waaw nah, ku melni iya, tay tey mën ne Aliou Sall sama grand la et cetera et cetera Matar Ba xam nga très fay xam nga bayuma nah. kenn parce que man bi may ci sen souf tank ñi ànd ñi ànd ensemble ma di len di wayal boobu amaguma album tolloo gi fi ma toll voilà loolu la. kon comment ça fait que nga ni tu es apolitique parce que ñoom seen meeting ngi yëpp yow dama lay gis yow yaa leen di woyal. waaw mais dañ ma doon woo suñ ma woowee nii damay dem jouer ba tey mataar ba nii may waxee yow nii euh, euh, euh, coupe meeram bii di ñëw rek woon na ma ci téléphone wax ma ko dama koy demal noonu la demee artiste moom amul lu dul maanaam sa aar. buñ la wowe ci ay activité da ngay dem jouer len walisek tay tey bu Matar Ba wooyee day dem jouer ko Youssou Ndour bu ko Matar Ba wooyee day dem jouer ko keneen ak keneen noonu la. waaw ñu gis dem ñu ngi gis euh, temps Tandian mu nekk euh, si ben télé de la place mu ni muy réclamer ñi ñu doon wax politiciens yeeg yoy nonu bon am na ñu bari ño xamanteni ni ñu ngi doon utiliser sen son yeen musiciens yi ngeen ngeen si campagne beeg yoy nonu mais ba léegi politiciens yi muy def appel pour ñoom ñu ñëw fay si affaire droit d'auteur beeg seen musique yooyu noonu ñuy def yow en tant que acteur si musique beeg yooyu noonu ban kii ngay ban message ngay lancé politiciens yooyu. waaw mais xam nga affaire wu ay droit d'auteur yooyu moom yàlla dafa def man dama ko maîtriser wu xëy na temps mi ko maîtriser temps temps mi ko maîtriser moom mën na wax ak ñoom waaw mais man moom loolu moom duma ci tontu quoi. naa ko naa leen bàyyi temps ndax moom fa muy liggéeye am na droit wax ak ñoom mais man ci sama côté liggéey laa yem mooy way waye askan wi. mais est-ce que si association boobu noonu ñu naan SODAV yow gis nga sa bopp. waaw mais SODAV man de li ma warloo ñoom maa koy def sama album bii hmm? dem naa jënd fa samay oldogram anyway seeni fiche jot naa ci voilà di ci liggéey. fépp lu ma warloo ak ñoom man dinaa ko def léegi na xanaa mu des ci ñoom te am naa yaakaar nag ñoom liggéey bi leen war ci ñun artistes yi dinañ ko def ndax loolu moo tax ñu teg leen fi. ba nga jotee woy ba léegi jot na est-ce que toog nga jox la ñëw ne la vieux kaay am nga fi xaalis. non non non loolu mosut am loolu pourtant say produits ñu ngi sur le net yooyu noonu gars yi nga koy teg fii restaurant yeeg yooyu noonu pourquoi loolu yow est-ce que yow a war woo waa mais xam nga maanaam ñoom lu ñu war a def buñ ko defulee doo ci force ñoom liggéey boobu ñoom ñoo war a am vigilant boobu ñoom ñi ñu teg foofu ñoom ñoo war a am maanaam maanaam ndax nit ki buñ la falee dara soo ko matee doo xaar ñu di la woo en tout cas ñun artiste daal ñu ngi leen loxo pour ñu jàppale ñu ñun voilà nañu jàppale bu baax a baax a baax a baax waaw ndax coow li bëri na.

ñu ngi ciy waajal bu soobee yàlla euh, soirée de bu mag bu soobee yàlla bëgg nañ ko bi yen bientôt bu soobee yàlla xam naa saa bu jotee rek bu soobee yàlla ci woo sax yéen ñëpp ngeen ñëw euh, suñ paree ci soirée de bi bu soobee yàlla ñu ngi bëgg a song fu mel ne grand théâtre da ngay songal loolu teelul. non teelul grand théâtre ay ñi koy ay ñi dafay ñëw te yàlla may na ma nit ñi international nak parce que gisaguñ la ci comme ça nga ni ñu ni vie mi ngi France vie mi ngi Italie ak yooyu noonu tournée international loo ci xaar. wa yooyu yep ñu ngi ñew yooyu yep ngi ñew parce que ñi ngi ci yoon bi te ñi ngi ci liguey bi actuellement ni ndax tay ba tournée yi moom ça dépend ci producteur yi nga xamantene mom ñoo la soxla voilà ñun sa bu ñu soxla tamit ubbil niñ len seni porte suñu porte ñun ñep sobe yalla waaw saa bu joté rek. day yomb côté boobu waaw. kon daal yaa ngi say saa yi yaa ngi Sénégal di toj Sénégal quoi di yëngalu mais tamit euh, ba léegi tamit gisaguñ la si tournée nationale yi de foo si toll. waaw tournée national yi ci programme bi la bokk. ci programme bi la bokk. ndax suñu paree bu soobee yàlla ci soirée de lancement bi dañ def tournée tournée nationale bi suñ paree après euh, grand théâtre suñ paree grand théâtre après bu soobee yàlla côté bitim réew bi moom. dinañ fa siyee ba doyal. Ah. loolu moo am problème. <laughs> kon gars yi ah, soobee yàlla. donc euh, grand théâtre est ce que mën nañoo xam kañ la. grand théâtre bi actuellement c'est sama ménagère Minky. ngi Minky, mais ça, bu waree bu ñu waree génne kii bi rek dinañ ko génne bu soobee voilà, waaw loolu am benn problème waaw. voilà bu soobee yàlla. vieux tey ñoo ngi 16 janvier 16 janvier lan la lay jox. 16 janvier 16 janvier. man yooy naa Eva Mbaye. niki dina la ëpp daraja ta du am li nga am bala jooy ndeke souf dina lekk doomu adama du lekk jëf nongoloo mu sëriñ fallu dem na ni nongolo lu tax deg <laughs> ah no fekk tey la anniversaire nongoloo nag ah. tey la anniversaire u nongoloo ko ci rendre hommage ndax sunu grand lord momi moom bu bax man limi def mën a way lool ndeysaan yalla na ko yàlla ci aljana yu gëna kawé kawe waaw. jotone nga ko xam. nangu la waaw jotone nako ko xam temps bu dëkkee euh, golf euh, euh, kii ci Nations Unies kër aju ngombe da na fa de doxantu léeg ni ngon bi da nañ fekkee tamit studio grand tayir mbay voilà non bi ma nekké xalé bu ndaw laay. laa bëgg aar bi di ko def dama ko mës bëgg rek ah di ci dox di ci waax di dugg di génn studio yi damay dem suba ba ngoon joon toog di xol ni gaa yi enregistré euh, suñ neen ndongolo ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xaare àjjana suuf si kawam at mbooloo mu jullit ah léegi suñ neen ndongolo comme par exemple ban image ngay njëkk am ci moom waaw ndongolo waaw image bi may njëkk am ci moom ndeysaan mooy euh, jàmbaar la woon nit ku yaayam la bëgg ay fameem di liggéey nag laa biir lool waaw ndax ci ay woyam tey boo déggaan ay woyam da ciy woy ay ay ñu néew di doole yi fu ñu jëm fu ñu jëm am jom man joma ko gën man ko gën jur mu dee taxuta yara dal jur lu ne meng fajul dara yara dal gaayu dañuy baale waaw manam ay woyam dal, manam da ci doon woyal askan bi quoi waaw man nak man mom sama kay la ci côté bobu motax ci sama côté texte boko deglo damay gëna a woy ci ci askan wi waaw ndax woyal askan bi dal, gis na né moy lepp dal waaw. veña gis na la tamit da ngay woy so woy traditionnel dang nga dang da yëngu bu baax sax. est ce que mën am ben woy traditionnel wala ben woy bo xamante c'est purement veña wo dégg da koy xam. ay waayu njinote nga rabbi ay waayu njinote nga rabbi ay bu rabbi ñu daldi mooñ cerey baraya àll bi la yaat na te nga rabbi boo leen rëbbee daldi mooñ cerey baraya

waaw waykat yi Sénégal yëpp ah Gambia waaw waykat yi jóge woon nañu fu ne yàlla def nag ma dem ba final waaw jël deuxième ci côté traditionnel voilà. mais li tax gisatuñu Vieux Ndiaye léegi si traditionnel bi lan moo xew. waaw pour traditionnel bi maa ngi ci parce que tous les vendredis maa ngi joué fii Max Foot fi ci kaw fii ñu defee émission bi nii chaque tous les vendredis maa ngi joué Max Foot ci kaw voilà cons rek la cons. Euh. waaw ñu yëngal. kon gars yi nañ fiy ñëw ah Babacar Mboup indi fi awa mbay bako jazz ya mu gëna a noo ah yaa ngi mag si foot kase tay tay gis nañ ni yeneen artiste dañuy teug ay ak yoy noonu lu xew wa bientôt parce que man dana jouer five dana jouer ay jet café waaye mais instant bi ñu toll ni ni nak dama ar yoroon nak pour mer sote te comme yalla def na album bi genn ah dañuy may gaay rek ñu cons ko ko conseil ba ci kanam nak après ñu song bu sobe yalla ci boîte yi yëngal comme ñep ah. ah waaw kon dara du moo ko gën a métti ci musique man lu ma gën a métti ci musique waaw lu ma gën a métti ci musique waaw lu ma gën a métti ci musique euh, mooy bi ma demee Sorano xanaa ñu génne ma waaw ci soirée du Ndiaye Mbengue boobu noonu Sorano bi ma fa demee daal def sama grand boobu bu rafet war a sañse Adja Awa Cubb sama benn yaay yónni doomam Kiné mu waroon na jox du Ndiaye Mbengue xaalis bi ki ne ñëw ci man na ma tey yaa may joxeel xaalis bi sama yaay joxe ndax sama yaay nga États-Unis te man la yónni ma ànd moom def grand bu yànj war a ñëw war a yéeg way dem ca Koulousia valable ba dugg ci biir joxe samay carte ak yëpp ba dugg ci biir ay garde corps fekk ma fa ne ma videur ma kaay ana Vieux Ndiaye moom xamuñu ma sax ñoom Oumy Sow ak ñoom Mamba Mamba Sine Thiam ne leen ngi ne ci la ñëw ci man na ma kaay ñu wax la. ma ñëw ñu génn ma ci biti. mais kan moo la dëgg est-ce que Doudou Ndiaye moom la wala. je ne sais pas hein je ne sais pas je ne sais pas hein xaw ma kan moom ma génne. mais mais parce que tamit gis nga yaa ngi ñëw si yaa ngi ñëw si kii programme mu jàmbur yow tu es en règle ñu ñëw jëlee la fa teg la fee est-ce que du borom ki kii tëgg mooy Doudou Ndiaye Coumba Rose moom moo bëggul nga ñëw foofu. non non pour man pour moom. Mhm. ah man daal euh, bëgg na bëgg na ma ñëw ak. ñak na bëgg ma ñëw man en tout cas lima war comme mbir mi président la ko tuddee sama mbir la. est-ce que yéen ñaar amoo leen woon parce que gison nañu yeen ñaar bon daan nga fa fréquenté. ba pourtant non amuñu amuñu benn problème ndax man ay doomam yépp dañ ma bëgg muy papa Meng muy dund muy muy Ousmane Meng muy ñeen doomam yépp dañ ma bëgg té mom ci bopam yag na fréquenté kërëm après delwar yag na fréquenté kërëm waaw man yag na toog ak mom né ko dama bëgg nga ñëw jappalé président.

mais bi mu demee noonu man ba tey lijjantiwu ma sax ah, xooluma ko def loolu wala dara am ma toog rek kul tax xam ne bësëng ci bësi man dinaa joué foofu mu joué feesal ko del comme ñëpp dinaa joué fu raw foofu feesal ko dellu comme ñëpp parce que daam loo xam ne gëm-gëm la ak ambition loolu la. waaw loolu daal moo ko métti si carrière musicale am Vieux Ndiaye ñii laaj tamit lan moo la gën a neex si euh, sa carrière musicale. waaw sama carrière musicale euh, li ma gën a neex mooy. bi sama album bi génnee ñëpp di ma félicité di wax ne vraiment album bi neex na album bi neex na loolu moo ma gën a neex sama carrière musicale voilà deuxièmement di déglu ay woy ma gën a neex. dama ko bëgg <laughs> sama idole la. Ah. waaw parce que moom tey mën naa ne idole la ci musique ah, nit la koo xamante ne du ku ñuy def morom daal. borom maa mën ci wax xanaa du ku ñuy def morom. <laughs> man nag roy boobu ma koy roy nag moo tax ma mën a man ci bee boor mën ci bee boor ku ma woo ci mbalax mi day saf sap ku ma woo ci traditionnel bi day neex ràmbal yow gaay ku dàq way non ma gaay ku dàq way maanaam mam non man man à part Youssou laa la wax euh. à part Youssou fii man maa fi dàq way ah à part Youssou dama ko xam rek dëgg ma la wax xanaa eh. ma kenn yow yaa leen tudd eh. mais dama ne man à part Youssou Ndour eh. fii man maa fi dàq waay à part Youssou Ndour loolu nga wax d'accord yi gars yi fii li ñu way yow daanaan nga ah. mais à part Youssou Ndour yaa dàq way ñëpp hmm. yow la man la mais man sama bopp laa wax dama la à part man maa fi dàq kon à part Youssou moom moo dàq way Vieux Ndiaye ñu ngi si émission bi mi ngi ñu ngi si terminé bi donc euh, bon dañoo bëgg nag dafa am rubrique boo xamante ni comique la quoi dañoo bëgg nga léebal ñu wala nga wax ñu benn affaire bu boo xamante ne nga ko jotoon dund bu reetaan la. waaw ah, man mi waaye hmm, lu ma mën a kii waaye comme kii man na xam nga damaa amul habitude di di léeb yooyu. ok jàpp naa loolu. lebal xanaa benn kii la woon benn benn paa. waaw jékkee-jékkee ñu teg bool bi soxna si teg bool bi ñu ñu commencé lekk quoi benn xale bu sob moom ndawal li rek lay visé jàpp ci ndawal gi ji lekk jàpp ci ndawal gi ji lekk paa bi nag dus na ko wax na ko eh ci biir ci biir gan yi na ko eh teel sa loxo. ko yow ndom sama garab gi ci bundu kër gi num tuddu munako dakar gi munako ne ko ral sa nday jóg <laughs> loolu loolu garaaw na loolu garaaw mu don sen xarit euh, sen dom nday Papa jeng Sala mi fi ci sen découverte TV mais bala may génn tay damay laaj damay wax damay remercier ñi nek ci ginnaw fi yëpp parce que tarkala machallah tay bo leñu leen ñu gisee ñu nice ñu rafet ku ci mel ni sunu DG Ousmane Ba moo nekk ci ginnaaw ah, at dani sama ndaanaan loolu at moo euh, Modou xule moom moom mooy jinne caméraman lu lu Lamine Samba naan jinne caméraman moom mooy kingu caméraman yi waaw tey nag maa ngi def sama pile bu baax ah ngañ demba moo ma ko sañseel ah ku ko bëgg rek demal marché Gueule Tapée ah tarkala macha allah lépp lu jeng saala sol moo ko def di leen jox euh, rendez-vous prochainement ak ndaanaan lu mag nag nee naa leen at Planète Star rek yéen xoola dem leen daw abonné wu seen découverte TV fii instant yi ni jamono ji ñooy bomb jaa jëf